xale da nga war a am kilifa donc éducation de base mooy tax soo génnee kenn du la fëkk parce que tey li nga gis xew xew yëpp c'est parce que c'est une mauvaise information à l'endroit des jeunes les jeunes sont manipulés xale yi ñu ngi jaxase seen xel di leen wax loo xamante ni tey ça les pousse à se te tey ñun toll nañ foo xamante ni le Sénégal et en phase de construction lépp loo xamante ni tey ñu ngi koy def ci Sénégal c'est l'argent du contribuable le contribuable man la ak yow ak le plus pauvre sax tey moom alalam bi nga xamante te te ni moom la jël moom la ñuy jël di ko defaree les projet te tey bu ñu jëlee ces projet là réalisation yi nga xamante ni son excellence le président Macky Sall vraiment en passant sax maa ngi ziar bu baax Euh, le président de la république bi nga xamante ni mm, actuellement mu ngi euh, à la Mecque ñu ko yàlla mm, da aj bu nangu xam na ni bu fa nekkee euh, Sénégal la fa nekkal jàmmi Sénégal la fan fan dafay ñaan ak émergence su Sénégal donc daal ñu ngi koy ñaanal mu dellu si si jàmm salaam fekk fi Sénégal bu dal comme li li ma wax son excellence le président Macky Sall tey li muy def defu ko ngir boppam da koo def c'est parce que ñun ñoo ko dénk ne ko dañ la dénk suñu alal pour nga réaliser si ay projets réaliser si ay infrastructures yoo xamante ni dina jariñ askan bi donc nag infrastructure yooyu bu dee mu ngi koy def si ni mu waree donc jàpp naa ni bu ñu amee lu ñu metti ñun askan bi ñoo dem yàq infrastructure yooyu loolu nag je pense que nii jikko yi yi nga xamante ne imaam tey wax na ko moo changé mooy ndaw yi bu leen kenn puus si yàq bu leen kenn puus si taal parce que tey li li gën a metti mooy eh, li ñu taal la bibliothèque universitaire ñun ñëpp foofu lañ jaar muy yow muy keneen ak keneen bind suñu mémoire bàyyi fa depuis Euh, les temps immémoriaux ba ba léegi ku ko am xam-xam jàng jaar nga université ñu bàyyi fa say archives donc je pense que ni tey loolu bu ñu demee ba ay ndaw nga xamante ni ñoom si loolu dañuy war a di sukkandiku di gëstu ñu xalaat taal ko donc y problème donc maa ngi gën a euh, invité à la jeunesse ñu xam ni c'est une jeunesse éduquée une jeunesse consciente mooy tax réew mën a am espoir pour que mu mën a am des lendemains donc jeunesse bi buñ ñu manipuler la politique c'est un débat d'idées contradictoires ku nekk nag am nga sa droit far si ku la neex wax sa xalaat parce que lu ñu mënul waxtaane autour d'une table je pense que ni amul lépp war nañ ko mën a waxtaane trouver si ay solutions donc daal di wax ni daal réew ñoo ko moom dañu jéem a gën a amaat cette culte gëm suñu bopp am yar am teggin moytu yàq moytu taal parce que Sénégal wax nañ ko benn bopp la kenn du mën du ko xar ñaar également li gën a am solo mooy Sénégal le Sénégal est un modèle de stabilité partout dans le monde foo dem ni man je suis un Sénégalais dañ lay jox cër. dañ lay respecter et investisseurs yi dañuy am confiance pour ñëw fii investir donc nag je pense que ni image boobu ñu am bu ñu ko yàq image boobu nga xamante ne ni tey Sénégal am na ko sur le plan international bu ñu ko yàq mooy stabilité paix mais également hospitalité donc daal di gën a ñaaxaat rek parents yi bu ñu waxee ci parents yi aussi dañuy wax ci enseignants yi parce que tey enseignants yi aussi dañuy jouer rôle bu am solo à l'endroit des jeunes parce que ñoom ñoo leen di jàngal donc nag l'école ne pas un lieu de faire de la politique parce que tey gis nañ lu bëri ay ay éducateurs lañ ay enseignants lañ mais am nan ay partis politiques yu bokk je pense que sa politique soo koy def da nga ko def en dehors des écoles mais nga toog ak sa élève di di di ko wax ni kii baaxul kële moo baax yaa ngi pousser eh, élève bi pour bu génnee mu topp la parce que élève ki nga xamante ni moo koy jàngal day jàppandi lu mu ko wax lépp mooy lu baax mooy lu dëgg donc daal nañu gën a am de la retenue xam dëkk bi dëkk jàmm la dëkk bu nekk ci yoon la yoonu émergence parce que ñëpp xam nañ ni eh, Sénégal am na pétrole ak gaz te africain yëpp am pétrole ak gaz yëpp mu ngi sous des tensions politiques te loolu nag ñi nga xamante ni tey ñoo nekk autour de de nous ñu ngi teg bët suñu pétrole bi ak suñu gaz bi mais nag euh, euh, sant nañ yàlla parce que son excellence le président Macky Sall les réformes yi nga xamante ni moom la teg sécuriser na exploitation pétrole bi gaz bi ba Sénégal ne si jariñu ba la génération futur dina si mën na jariñu occidentaux yi nag wala ñeneen ñi nga xamante ni tey ñoo nekk autour loolu moo leen neexul parce que bëgguñu réew africain boo xamante ni dina nekk sur les rampes de l'émergence du développement donc nag nañu gën a xam bu ñu kenn jaxase ku nekk mën nga wax sa bëgg-bëgg ku nekk mën nga aspirer à diriger ce pays mais dans la démocratie dans la légalité dans la transparence mais aussi dans la paix parce que réew nag kenn du ko jot ci taal kenn du ko jot ci force kenn di ko jot ci violence donc daal je pense que nii loolu tey lu am solo la li imam wax mais également imam dafa rappeler du am solo mooy le travail parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ mais wax ji moo ëpp liggéey bi dëkk nag bu ñu ko bëggee defar dañuy jël liggéey def ko priorité ñu bëri dañuy toog amuñu liggéey amuñu liggéey boo leen wutalee liggéey mais doo leen xàmmeeti duñu xëy heure duñu wàcc heure li ñu war a def duñ ko def et je pense que ni tey on doit appeler la responsabilité de tout chaque chacun ñu xamante ni dëkk liggéey moo koy doxal dëkk euh, la constance dans le travail moom moo koy doxal nit ñi nag kuy liggéey moom la ñuy bañ bañ nañ ko sax ba ñi nga xamante ni tey ñu ngi liggéey di def ay preuve chaque jour ñu ngi leen di ŋàññ institut di leen wax nii te di leen wax la leen parce que tey dañu war a respecter liggéey ku nekk juge bi dafa am ay prérogatives yoo xam ne dañ ko ko jox bu prêter serment di def liggéeyam lu mu waree bu ñu koy diingat si li nga xamante ni moom lay li liggéey je pense que nii ñoo ngi eh, yàq li nga xamante ni mooy sunu chemin pour que ñu mën a am une justice forte tey jàpp pëpp naa ni médecin bi ngay dem seeti ko bu la prescrire médicament doo si teg baat doo ni li ma jox baaxul loolu nag moo war a nekk ci enseignant bi ci juge bi ci travailleur bi nit ki boo ko dénkee liggéey da nga ko war a wóolu donc nag loolu je pense que ni imam wax na si insisté na ci li loolu man li ma jàpp mooy Sénégal wax lañu ñu gën a bëgg ko liggéey dañu fonk suñu liggéey parce que liggéey mooy tax dëkk bi développé wu mooy tax ñu mën a am ay infrastructure mooy tax ñu mën a am une institution forte au-delà de cela euh, directeur est-ce que il n'est pas temps aussi qu'on essaie de comprendre la jeunesse cette jeunesse boo xamante ne nee nañu tey euh, taux de chômage bi euh, dafa dafa mel ni loo xamante ni Sénégal ndaw yi fi nekk liggéey bu bëri nañu mais aussi euh, cette euh, soif d'indépendance et de liberté ñu comprendre jeunesse bi ni ki loolu aussi dañ ko soxla on parle de l'indépendance de la justice aujourd'hui les candidats Ousmane Sonko euh, ñu dañ ko bëgg a écarter ci course bi rawatina bi nga xamante ni moom moo ko wutale ak ki nga xamante mooy Adji Raby Sarr ak li nga xamante ne moom joxe comme verdict ndax na ci di gën a jur tension bi nga xamante ne lañ nekkee est-ce que il angle ah, je pense que ni tey li euh, xew euh, ba jeunesse bi émissé si je pense que ni dem ma jàpp ni ñu ngi si erreur man si sa ci sama xalaat parce que tey il s'agit de deux citoyens sénégalais yu am problème kenn ki dem porte plainte keneen ki justice def liggéeyam. parce que actuellement démb rek la décision de justice bi leeral na ko donc ñun du duñu commentaire ci décision de justice mais tey li nga xamante ni moo gën a am solo mooy indépendance bi nga xamante ni justice am na ko un citoyen lambda moo dem porter plainte beneen citoyen lambda donc jàpp naa di foofu comme juge yi ñu ñuy traité tous les dossiers noonu la ñu traité dossier bi mais nag xam nga fii au Sénégal lépp dañ koy instrumentaliser jaxase xelu nit ñi dugal si loolu looloo xamante ni tey dina pousser la jeunesse à se révolter wax nga ko sànq jafe yi nga xamante jafe yi nga xamante ni. jeunesse bi am nañ ko mooy le problème de l'emploi donc tey je pense que ni nous les hommes politiques waruñu jaar ci faiblesse boobu parce que je, je, je, je partout dans le monde dans même les pays développés ont un taux de chômage élevé l'État ne peut pas régler le problème de l'emploi mais effectivement raison pour pour, pour laquelle boo gisee ni Sénégal di doxee xam ne l'État a beaucoup avancé pour créer des conditions pour que les jeunes puissent travailler mais nag daanu mënul daj dëpp mais nag il faut que la les jeunes yi nga xamante ne tey am nañ métier ah am nañ expérience am nañ ay compétences ñu mën a penser à l'entrepreneuriat parce que aussi un pays ne peut pas se développer sans pour autant qu'on crée des champions am ñoo xamante ni tey ñoom ñooy dem créer ay entreprises moi tey je peux je peux me citer un exemple je peux me citer un, un, un exemple j'ai été un entrepreneur j'ai créé une so so société qui a démarré à zéro jusqu'à euh, arriver à un niveau élevé donc tey je pense dañu war a gëm ni tey ñun ñoo war a am cette ce culte de servir notre pays servir notre pays nag c'est entreprendre donc nag euh, euh, ñu ngi massa wu jeunesse bi xam nañ ni les temps sont durs liggéey amul mais loolu aussi bu mu tax ñun ñu jël xeexu jàmbur boo xamante ni ça n'a rien à voir avec une affaire politique c'est une affaire privée entre deux Sénégalais pour que bi bëgg a jël xeex boobu porté ko def ko arme de feu pour di yàq walla pour pour pour taal. donc daal xeexu la ndax Ousmane Sonko tey position bi mu am ci euh, politique tey war mu war ko mën a considérer comme jàmbur tey euh, on parle de chef de l'opposition mais su fekkente ne Idriss Seck tamit mu ngi koy rek tamit nga am euh, tey sympathie bi nga xamante ne moom la am avec les sympathisants ndax mën nañ ko jàppee jàmbur aujourd'hui ak ñi nga xamante su may wax jàmbur dama ni un citoyen normal comme tout le monde parce que li nga xamante ni tey moom la koy yoon di toppee beneen citoyen sénégalais moo ko porté plainte donc tey mais euh, euh, nous sommes tous d'égale dignité de de de de de devant la loi que, que tu sois un homme politique que tu sois un médecin que tu sois que que que que quelqu'un d'autre boo amee ay jafe-jafe nit bu la yóbbee si yoon yoon da lay juger comme ni muy juger ñëpp bon moi duma ñëw di wax euh, euh, euh, que que Ousmane Sonko c'est un homme politique boo xamante ne ni il a la sympathie de la jeunesse loolu ñëpp xam nañ ko mais li nga xamante ni tey moo xew jàpp naa ni ça n'a rien à voir ak yoon bi nga xamante ni moom la ñu bëgg a yóbbu. donc daal di di wax ni rek yooyu te nul n'est au-dessus de la loi et force restera la loi man daal li ma jàpp mooy la justice est indépendante li nga xamante ni moom la justice def. malgré ñun coow li ci am ci justice jàpp ne dafa waaw man daal loolu mooy sëm gis-gis jàpp naa ni daal euh, lépp loo xamante tey am na une décision. de justice on se limite à la décision de justice ñun am ñu si commentaire mais di wax na rek nañu xam ni réew mi daal ku si nekk euh, am nga fi droit am fi ay devoir donc nag kenn du teg nit euh, au-dessus c'est parce que tu es un homme rek kenn warul la juger wala kenn warul la teg tuuma nga nekk homme politique nga am jafe-jafe ak beneen sénégalais nga gani nguur gi ñoo may ñoo complot je pense que ni loolu c'est pas une raison. ñu ngi jëm ci li nga xamante mooy discours du gannaaw dialogue bi nee na bi dana wax euh, looy xaar ci li nga xamante ni mooy discours boobule ak li nga xamante ni mooy les conclusions du waaw comme ni nga ko. gisee fan yii yëpp euh, y' a à près deux semaines mi ngi woon ci euh, dialogue national bu ñu waxee dialogue national nag ñëpp moom dañ si bëgg a génn rek côté politique mais am na côté sociale côté éducation côté santé côté bon gouvernance yooyu yëpp dafa bokk ci dialogue bi te man foofu dama fay saluer la grandeur de son excellence le président Macky Parce que tey on est dans un régime présidentiel c'est le président qui a les prérogatives et les pouvoirs de mener la politique de l'État moom tey bu ko neexoon du woo kenn continuer sa politique dialogue mais tey li li mu def loolu ku amul mat am moo grandeur doo ko def ne yéen ñëpp maa ngi leen di woo ngeen ñëw ñu waxtaan parce que nag réew waxtaan moo koy defar donc loolu dañ ci sant le président Macky Sall si leadership am parce que ñëpp xam ni le président Macky Sall incarne un leadership fort te loolu tey li mu wootee si dialogue bi wane na ko dialogue bi nag gis nañ ñu war a répondre ñëpp répondre parce que man jàpp naa ni boo amee lu la metti si réew lu la neexul bu ñu wootee ñëpp tous les leaders partis politiques yi waa waa société civile Euh, les religieux les notables ñëpp toog les enseignants les artistes les hommes de culture ñëpp ñëw toog foofu lañ ko war a waxee parce que nit daa am foo xamante ni fa la ñuy waxee donc ce dialogue là c'était une occasion pour opposition bi ñuy wax opposition radicale ñu ñëw toog fa wax seen i jafe-jafe ni lii la ñu bëgg lii la ñu bëggul bu ko defee ñu mën a toog ñu waxtaanee ko gis nañ nag joxe nan les conclusions son excellence le président Macky Sall wax na ni bu tabaski bi paasee dina génn def son discours. ñëpp nag si li ñuy xaar. dialogue bi tamante bu fekkente ne Ousmane Sonko assisté wu ci yaa ngi ci wax ci opposition radicale bi Ousmane Sonko bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom waaw mais mais mais c'est ça xam nga nee naa président Macky dafa tàllal loxo ñëpp ne ñëw leen ñu waxtaan mais nag koo xamante ni bëggul ñëw kenn mënu ko forcer mu ñëw mais man jàpp naa ne bu dee da nga bëgg réew bëgg jiite réew mi bu ñu la woowee ci waxtaan foo xamante ne je pense que mooy lieu boo xamante ni loo fa wax dañ koy jël en compte war nga mën a dem waxtaan boo paree nga continuer sa xeex continuer sa opposition parce que on est dans un pays de démocratie foog mu am opposition foog mu am ñu bëgg foog mu am ñu bañ mais yooyu yëpp ci waxtaan la donc tey man jàpp naa ni li ñu waroon a def dialogue bi def nañ ko parce que également ay personnalité ñu ñu ñoo fa nekk ña fa dem ñëpp tey am na lu ñu représenté ci ci réew mi am na également lu ñu def ci réew mi donc rek bu duñ jàpp ni ñaari nit wala ñi ñetti nit ñi nga xamante ni demuñu moo tax dialogue bi ni mu waroon demee demul donc nañu respecté les sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo fa dem les responsables yi nga xamante ni ñoom ñoo fa dem toog ak eh, état bi waxtaan li nga xamante ni mooy jëmal kanam suñu démocratie mooy jëmal kanam suñu émergence su réew. en parlant d' AIBD nga nekk directeur général eh, tey li nga xamante ni moom mooy xamante ni mooy ay lan lañ mën a jàpp ci li nga xamante ni mooy euh, gestion bi ak ban impression nga ñu mën a wax ci en en de manière résumée ci AIBD euh, ci sa gestion bi. waaw xanaa encore euh, di remercier hmm, di sant son excellence le président Macky Sall moom mi nga xamante ni moo ñu wóolu dénk ñu une grande structure comme AIBD SA may gérer la gestion des aéroports du Sénégal hormis ay de Diass y a les treize aéroports régionaux yi nga xamante ni moo nekk sous ma responsabilité ñu xam ni euh, euh, le président Macky Sall sur son plan Sénégal euh, émergent da see jox bu cër le domaine de l'aviation le secteur aéroportuaire président da koo jox cër moo tax bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy fexe ba aéroport bi pare je pense que ni tey on peut s'en féliciter depuis 2017 le président Macky Sall a inauguré l'aéroport international Blaise Diagne mu nekk aéroport bu mucc ayib par rapport aux aéroports de la sous-région donc tey je pense que ni tey euh, loolu dañ ci sant son excellence le président Macky Sall man nag bu ma jëlee jox ma njiit bi ñun suñu responsabilité mooy yaakaar bi nga xamante ne am na ko pour que suñu aéroport bi mën a nekk le premier ëpp aérien régional ñu mën ko doxal ba ma ñëwee nag ba léegi euh, si loolu lañ nekk mooy fexe ba stratégie de ëpp aérien bi ñu teg mu nekk une réalité ëpp aérien nag bu ñu koy wax mooy une plaque tournante des aéroports ñu bëgg aéroport Dakar nekk ki célébé yoon boo xamante ne tey eh, aéroport monde entier bi yëpp eh, avion monde entier yëpp nañ fi jaar pour mën di dem si yeneen dëkk yi te loolu ñëpp xam nañ ni tey les projet yi nga xamante ni moom la ñu commencé di teg mën naa ci citer le centre de maintenance aéronautique ñu koy wax éméro centre la bu mag a mag boo xamante ni tey ñu ngi koy def fii ci aéroport di Diass mooy centre boo xamante ni dinañ mën a jël avion yu mag yi di ko fi mën a def seen entretien ak seen réparation parce que autour de l'Afrique de l'Ouest yëpp projet boobu bu amu fi te loolu su amee day gën a dooleel sunu compagnie bi ñuy wax bi wax Air Sénégal parce que tey Air Sénégal bu ay avion bu waree def entretien day jógee fii ci Sénégal dem ci yeneen réew te su boobaa li muy fay dafay chair mais nag ñëpp xam nañ ni le Sénégal est un point stratégique donc tey centre tour boobu ñu ngi ci les travaux d'exécution fan yii rek war nañ fa dem def visite parce que ñu ngi commencé di monter hangar bi je pense que ni loolu c'est des projet phares yoo xamante ni. mooy tax sunu aéroport bi nekk aéroport boo xamante ni day répondre aux normes internationales mais nag gis nañ ni ba mu ñëwee ba léegi yéen a gis ñu ngi rénover les aéroports régionaux kii di di aéroport Cap Skirring aéroport Ziguinchor aéroport Tamba aéroport Saint-Louis aéroport Sédhiou donc tey tous ces aéroports là sont en train d'être réhabilités et fonctionnels donc je pense que ni daal ñun mission bi nga xamante ni moom lañu ñu dénk pour ñu mën ko doxal ñu ngi koy def sans bruit boo li li wuñ ci wax li gën a am solo mooy xam li ñu la jox nga doxal ko pour fair des résultats et je pense que ni sunu intérêt mooy euh, aéroport international Blaise nekk le premier hub euh, euh, euh, aérien au niveau de la sous-région mais li si gën a am solo mooy benn école boo xamante ni tey ñu ngi ko fiy def pour di mën a former ay pilotes ak ay ingénieurs en aviation civile loolu également amul ci Afrique donc tey ñun bu ñu amee ce projet la bi nga te ni dafa arrosé wu si les ambitions de son excellence le président Macky Sall donc tey loolu ñëpp gis na fan yi rek bi président ñëwee conseil des ministres décentralisé à Thiès dem na def la réception de neuf avions et de onze hélicoptères yoo xamante ni les élèves pilotes foofu la ñuy jànge donc tey je pense que ni loolu c'est des actes forts yi nga xamante ni AIBD mu ngi posées pour que ñu mën a am une bonne image de notre secteur aéroportuaire. en parlant d'image xam naa sécurité bi moom war ngeen ci dolli. parce que nee nañu euh, ñi nga xamante ne ñooy usagers yi à chaque fois ay bagages yu réer ci aéroport yi yaakaar naa loolu tamit monsieur monsieur le directeur. Mhm. loolu euh, war ngeen ci mën a taxaw pour quand euh, ñu ñu bañ am genre réclamation yi. waaw yooyu moom vraiment ñu ngi si mbasawu ñi nga xamante ni am nañ si ay eh, eh, jafe-jafe mais jàpp naa ni bi mu ñëwee eh, aéroport ba léegi nii j'ai fait presque six mois. je pense que ni retard yi ñu doon am si la réception des bagage ak vol yi nu doon am si bagage yi wàññeeku na parce que renforcer nan la question de la sécurité et de la sûreté pour que eh, eh, aéroport bi mën a respecter le temps bi bi nga xamante ni passagers yi ñu ngi koy xaar pour jot seen bagage je pense que ni maa ngi euh, féliciter le gestionnaire LAS mi nga xamante ni euh, vraiment requêtes yi yi leen di jox ñoom it ñu ngi koy suivre pour mën ñu jàppale ba aéroport bi euh, mën a nekk un un aéroport qui respecte aux normes parce que rek fan yii rek euh, la ñu nommé aéroport international Blaise Diagne le meilleur aéroport d'Afrique loolu su su amee dafa am ay critères yu ñuy jël mooy critère de ponctualité critère retard bagage mais également critère d'hygiène parce que ku ñëw aéroport Dakar daaw ak ren xam ne léegi change changé na aéroport bi gën na set aéroport bi gën na am mm, mm, taar te loolu je pense que ni bi ñëwee ba léegi ñu ngi def suñu lu ként la kàttan pour que euh, euh, passagers yi mën a voyager dans de très bonnes conditions. kon la gestion neex na lool waaye dañuy wax tuuti ci politique dañuy nekk gër euh, la Thiès ku ko wax waxu politique ñu. li nga xamante ni moom moo fi nekk ci ay activités mais aussi euh, ci li nga xamante ni mooy votre ambition pour la mairie de Thiès ndax ambition bi changé wu am bokk euh, leneen ñeesil no man samay ambition pour la mairie de Thiès euh, reste toujours intacte euh, en deux demoon naa sama première élection j'ai sorti avec 10 300 voix te loolu vraiment dama ci encore di sant Thiès yi nga xamante ni ñoom ñoo ma gëm ba voté loolu loolu ma yàlla nag moo def ni euh, tey nekkuñu ñu maire mais on restera toujours euh, dans euh, la dynamique de continuer notre ambition pour être le maire de Thiès parce que suñu yéene ci Thiès hmm, mooy euh, la ñu doon wax ci suñu campagne le projet bi bi ñu amoon ci Thiès moo nekk si ñun ba léegi te projet boobu la ñu bëgg a doxal parce que su parce que suñu yéenee mooy Thiès soit une ville émergente parce que tey ñoo ñoo ñëpp gis nañ ni maintenant Thiès est devenue une grande ville donc là il nous faut des projets structurants des pro projet yoo xamante ni tey am nañ ñoo xamante ni am nañ la volonté am nañ les capacité pour que que loolu ñu mën a anticiper sur euh, euh, le développement futur de Thiès parce que comme li may wax rek gouverner c'est prévoir tey Thiès est devenue une ville peuplée parce que boo duggee Thiès yaa ngi commencé gis ay embouteillages je pense que tey euh, ñi nga xamante ni tey ñoom la ñu dénk euh, maa ngi en passant maa ngi di remercier le maire de Thiès ba ba kër Diop di ko ñaanal yàlla yéene bi mu am ci Thiès mu mën ko mottali mais ñun teewul suñu yéene si Thiès du mës a deñ ñun cees dañu xam Thiès lañu bëgg lu ñu am cees lañ ko amal te nos projet yi nga xamante ne amoon nañ ko ba léegi ñu ngi continuer di ko wérir pour que ëllëg bés bu ñu demaatee eh, eh, élection ñu mën a demaat laaj yi baatu eh, askan bi pour que suñu projet yu ñu amoon ñu mën ko indi fii ci Thiès pour un Thiès qui se développe un boo xamante ni dañ koy industrialiser parce que dëkk soo bëggee mu dox fa mu am ay industrie les gens parlent de problème de l'emploi mais s'il y pas des industries des sociétés qui peuvent as absorber le problème de de l'emploi du dox mais nag tey sax gis naa ni Euh, euh, ñu ngi santaat son excellence le président Macky Sall avec la relance des chemins de fer parce que ñëpp tey gis nañ ni la promesse bu président di di defoon les Thiessois réalisé na ko mooy la relance de chemins de fer mu ngi ku commencé waat te chemin de fer aussi da dafa nekk société boo xamante ni day jël emploi donc di wax ni Thiessois yi na seen xel dal. parce que son excellence le président Macky Sall am na si ñoom yéene Thiessois yi fi taxoon di yuuxu di laaj ni dañoo bu bëgg ñu réhabiliter ñu relancer waat les chemins de fer et je pense que c'est c'était une promesse mais la promesse a été réalisée donc dañu gën a daal jàppaat parce que nag du ma terminer te du ma wax samay ambition pour le Sénégal Mes ambitions pour le Sénégal, c'est l'ambition de son excellent le président Macky Sall. Le président Macky Sall est mon leader. te man jàpp naa ni moo candidat pour 2024 c'est le président de la République parce que li mu def fii ci Sénégal si réalisation les promesses tenues surtout nag ne serait-ce que Thiès parce que Thiès ku ko xam xam ni dëkku raay la dëkk chemin de fer tey président la République bu demee ba réhabiliter les chemins de fer bëgg nañ mu continuer ko ba chemin de fer yu mën a na réaliser lépp ba jeunesse bi mën ci liggéey moo tax je j'invite je tends la mais à la population thiessoise ne man seen doom Ablaye Dièye président Macky Sall ma wóolu mu dénk ma maa ngi leen ñaan fu ma jaar ngeen jaar fa parce que man fu ma leen di jaaree c'est pour l'intérêt commun c'est pas de mon intérêt le fait que ma nekk DG euh, AIBD looloo tax ma bëgg a soutenir la candidature du président Macky Sall mais je le fais d'une manière objective xam ni kii fi mu ñu jëmee mooy suñu njariñ mooy njariñu Thiès mais également mooy njariñu jeunesse bi raison pour laquelle je suis le seul à lancer une pétition pour réclamer la candidature du président Macky Sall donc nag maa ngi wax waa Thiès ñoom ñëpp nañ ñu adhéré si la plateforme Siggi ak ak ak pour un million de raisons pour un million de signatures pour que le président Macky Sall puisse être le candidat en 2024 pour continuer les grands projets da jàpp ne ku dul le président Macky Sall keneen mënul yor réew mi que amul keneen koo xamante ni war na mën a porter projet yi ñu mel. waaw non xam nga ku nekk ak sa xalaat ku nekk ak sa gis-gis ku nekk ak sa choix man eh, Ablaye Dieng ak waa Thiès parce que ma man je suis un Thiessois te jàppal bi naa ni Thiessois yi am nañ ci man sympathie am nañ si man yaakaar te nit aussi boo amee si moom yaakaar moom dafay xool ki nga xamante ni moo ko doy man jàpp naa li fii son excellence Macky Sall def te yoon nag moo ko may pour mu mën a briguer un kenke quinquennat ñu koy wax troisième mandat donc ce pense que kenn ni tey euh, euh, euh, nit ki bu nekkee ci yoon émergence ba pare yoon may ko war nañ ko mën a bàyyi mu continuer parce que nag soit on on on continue les projets soit on fait une rupture te ñun nag fi nit ñi je pense que nii le Sénégal a besoin d'avancer bëgguñu di dellu gannaaw ñun daal li ñu jàpp le président Macky Sall est un leader incontesté sur le plan international il incarne euh, euh, un leadership fort gis nga fan yi rek dem na Ukraine Russie donc kay kooku du ma ni moo fi mën parce que yàlla rek moo xam aussi nul nee indispensable yàlla rek moom moo xam mais ñun nag am nañ droit bu ñu xoolee ni kii mën na te yaakaar na nañ ni bu ñu ko joxee eh, eh, eh, li ñu bëgg ci réew mi di di ñu ko defal moo tax daal jàpp ni ñun la coalition Benno Bokk Yaakaar suñu candidat c'est le président de la République son excellence Macky Sall opposition bi am nañ seeni candidat mais une euh, euh, euh, élection, c'est le choix de la population. C'est la population qui est souveraine. Président Macky Sall mu nekk candidat cela ne va pas dire que ni moom mooy gagner élection yi c'est le peuple de qui choisit mais nag le peuple bés bu ñuy def choix dinañ xam ku ku gën ci ñoom ak ku gën ci moom man nag jàpp naa ni le président de la république c'est le candidat du peuple te mooy le candidat bi nga xamante ni moo gën ci Sénégal. malgré que ni ki troisième mandat bi war na mën a yee tension ci réew mi ndax ba dina pays yi nga xamante ni daf ci daf ci jóg ay tension vous que président mu def troisième mandat ak lu mu mën a jóg. non xam nga man euh, moi moi moi je ne pense pas négativement on est dans un pays euh, de paix. et de stabilité mais jàpp naa ni dëkk c'est la loi qui est au de tout même le président de la République constitution moo ko tënk te jàpp naa ni sa candidature bu ko constitution bi validé comme ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko waxoon nekk si opposition bi ne bu constitution validé candidature Sénégal ku taal da dangaa def danaa def loolu loolu la neex donc nag je pense que ni bu ñu xamee ni dëkk bi dafa nekk dëkk yoon nañu bàyyi yoon bu def liggéey bés nag bu constitution bi taxawee ne ko président Macky Sall wa waroon nekk candidat mu ñun ñëpp on va su boobaa it ñun suñu génn taal donc nag dañu xam ni daal réew mi dafa am yoon on laisse la constitution donner la décision bi nga xamante ni mooy tax sénégalais bu ci nekk bu bëggee nekk candidat kenn rek moo ko ko mën a wax mooy la constitution yow tey bu la neexee subaa nga dem déposer sa candidature man it bu ma neexee suba ma dem déposer sama candidature donc xam nañ bàyyi yu def yoon mu mu def liggéeyam et nag loolu vraiment su amee ñu ngi ñaan euh, les sénégalais ñu ànd ak dal ànd ak tey xam ni réew mi ñun ñoo ko moom bu ñu ko taalee it ëllëg dañuy wuti lu ñu ko defaree te li ñuy wuti ñun ñoo ko moom contribuable bi moo ko moom le plus pauvre moom moom moom moom moom moo ko moom donc daal loolu moo si doon sama xalaat. le plan B de Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba Abdoulaye Daouda man nag awma plan B. wala Abdoulaye Dièye. man awma plan bee dee naa la la seule constance mooy le président Macky Sall. man mooy sama leader si moom laa topp. bu bu bu demul te man jàpp naa ni dafay dem bu demul ku mu ñu tegal ñu ñu ànd ak moom. ñu ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf maa ngi leen di sant bu baax di kontaan vraiment si eh, émission bi di nuyu waa Leeral TV yëpp toute la plateforme de Leeral di nuyu seen directeur général di sama xarit di leen. ñaanal yàlla seen liggéey bi ngeen nekk yàlla na ko yàlla barkeel c'est vraiment ñu ngi leen di suivre gis euh, liggéey bu am solo bi ngeen xamante ni vraiment yéen a ngi koy def di leen wax euh, déwénati